sant yàlla bu baax jur ci yonent bi sangu-sang yi li nga xam ne ci baaxu suñu borom moo ñu may ñu teew fii tey ci bés bi bésu màgg bi nga xam ne jigéenu cees ñoo woote tey conférence religieuse bu am solo bi ci weeru koor du tedd bi muy weeru koor ci guddi gu tedd bi muy guddi àjjuma ñu ñi fi teew ñëpp nag bàyyi bu ñu kenn kenn ku ne sa tur sa sant ñu lay fekk fi nga toog di nuyu nag monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la république sama collègue Augustin Tine maa ngi koy nuyu bu baax ndax su ma ñëwee Thiès damay jaar ci bunt bi bunt bi moom la kon maa koy nuyu bu baax di ko ziar kontaan ci moom ci nu mu taxawoo jigéen ñi. su ma ko nuyoo nuyu naa képp ku nekk responsable képp ku nekk responsable fii ci coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci département Thiès maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay su ma nuyoo monsieur le maire nuyu naa maire yi mu àndal yépp ci département bi kenn ku ci ne turam santa santam teg lu nuyoo bi nag ci excellence Alaaji Fallou Fall maa ngi lay bu baax teg sama nuyoo ci maire département Thiès teg ko sa loxo nga séddale mel ni di nuyu nag jigéen ñi bu baax di leen sargal di leen ziar su ma nuyoo jigéen ñi dama jiital nag ci nuyoo bi ki nga xam ne ki mooy coordonné activité bi tey mooy honorable yayaal yi maa ngi nuyu bu baax di la féliciter encore une fois sa taxawaay ak sa jàpp ji nga jàpp ba événement bi mel taxaw tey yow ak ñu ko àndal ñëpp. su ma la nuyoo damay nuyoo tous les honorables députés ñi xam te ñoo nekk fii salle bi ma distingue ci sama sœur honorable Fatou bu baax di ko nuyu. distingue ci honorable Maïmouna Sène sama sœur moom tam maa lay nuyu sa wàccuwaay di kontaan ci bu baax a baax. di nuyu tous les hauts conseillers des collectivités territoriales teg fii salle bi ci loxo Adja Yaya parce que ñoom ñoo nekk ci institution bi. nuyu aussi tous les conseils économiques sociaux environnementaux yi nekk salle maa ngi moom ñëpp bàyyiwuma kenn. di nuyu madame la présidente ma sœur Sénégal bu jigéen Adja Sénégal maa ngi nuyu baax sama sœur nga sama mbokk nga bokk mel na maam su ma duggee Thiès di wax ak jigéen ñi yow laa war a njëkk waxal parce que xam naa ne Thiès moom sa taxawaay rafet na fi nga jàppale président bu yàgg di ko liggéeyal di kenn nag sa baax ak sa yaatuwaay ak sa yiw madame Mbacke maa ngi lay nuyu baax di la ziar su ma la nuyoo nag ñëw naa jigéen ñëpp ci saal bi. kenn ku ci nekk rek maa lay sargal di la ziar di rafetlu tam bés bu baax a baax a baax parce que nag jigéen ñi li nga séntu ci ngeen ànd bokk ndey bokk bàyyi parce que liy bëgg benn la lu baax la ñu dox ci loolu la ñu wax kon bu ngeen àndee rek su ma xel dafay dal. maa ngi nuyu nag képp koo xam ne rek ne tey ji jóge nga ci sa gox ci 19 ci communes yi nga nekk ci département nuyu naa ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu tous les imams et les de quartier yi fi taw. képp kuy kilifa aada ñu nuyu le grand serigne de Thiès képp kuy kilifa diine imam ak chef de quartier maa lay nuyu bu baax di leen ziar di kontaan seen teewaay di remercier encore sama tur ak turu jigéen ñi seen taxawaay ak jàpp ñu leen jàppale. di nuyu monsieur le conférencier mon frère représenté sama frère Pape maa ngi lay bu baax ak ñi ñëpp maa ngi nuyu di ziar di kontaan di nuyu tous les communicateurs traditionnels fi toog di nuyu sama frère yi fi toog yëpp parce que ñu samay frère lañu samay mbokk deret kon maa leen bu baax di kontaan ci yéen di leen ziar bu baax a baax a baax di wax la sama bés bi tey sama teewaay xam naa xam na ci man waaye mënu ma koo ñàkk ba nga def parce que fii ci région de Thiès laa bokk département Tivaouane laa dëkk parce que fa laay sey dëgg la maa ngi militaire département Dakar waaye Thiès laa dëkk Tivaouane laa dëkk kon waa Thiès bu ñu wootee damay teew malgré sama agenda bu chargé je pense que dama war a ñëw pour sargal jigéen war leen mag ñu ñoo bokk li ñu bëgg ñoo bokk fi ñu jëm ba maa ngi di félicité encore di leen ziar bu baax di nag nuyu nag koo xam ne li yëpp moo ko waral mooy son excellence le président Macky Sall ak a neex a bëgg jigéen ñi ak a gëm Sénégal boobu kenn la suñu mooy son excellence le président Macky Sall yaakaar naa ne ñun jigéen ñi bu ñu renforcer suñu positionnement tey taxaw ba tey ñu wax ay o di wax ay loolu liggéeyu président Macky Sall la parce que moo loolu côté la loi jox jigéen ko dëpp ëbbatiku nag nañu jàppale waa jigéen ñi nañu leen renforcer dañu renforcer ay capacité dañu leen jox ay financement tax ñu mën a liggéey parce que jigéen ñi ku jàppale Sénégal nekk un pays émergent lu gën ko loolu nag jëf ci lu baree baree baree bare kon président ñu koy nuyu di ko sargal di ko ziar

naa loolu tam boobu gën a li nga xam ne mooy nekkalu askan parce que jigéen ñi ñi fi toog ñëpp ay politicien lañu waaye li ma bu jigéen moom dañ ko war a naw dañ ko war a dañ ko war a jox cërëm parce que yombul jigéen bu politique ak a jafe ak a metti ndax da nga war a nekk jigéen di politique da war a yor sa kër da war a toppatoo sa njaboot da nga war a toppatoo say doom boo ko boolee ak politique la dafay metti waaye jërëjëf suñu borom kër yi nga xam ñoo bàyyi ñu dem ci politique bi dem suba ba ngoon ñu xam lu xew suñu biir kër kon ñoom lu waaye lu wax góor ñi la kon bu baax suñu borom kër sant aussi ñi nga xam ne tamit ñoo nekk suñu ginnaaw ñu jàppale parce que jigéen ñi nag yaakaar naa politique bi ñoom ñoo ñoo fi nekk lu kenn doxul ñoo ci wax lu ci kenn waxul boo xam ne kenn mënu ko xayma def naa religion wax nañ ko léegi ku njëkk dee ci lislaam jigéen la jigéen jox gëdd lislaam gëdd bi ñu am ci lislaam defe naa ñun sax joxuñu ko parce que xam na nga jigéen ñi ku leen jàppale rek réew mi dem ku leen teg au cœur du développement réew mi dem parce que ñu am jox lañu nangoo liggéey lañu bëgg lu baax lañu président que bu baax kon jigéen ñi leen sonn ci ci liggéey bi président dafa wax fast track dañoo war a jëm ci développement réew mi dans les cinq ans mandat bi dafa nekk mandat bu spécial parce que président dafa bëgg réew mi dem kanam réew mi développé dem vers l' te loolu jigéen ñi nag vous êtes au cœur de ce programme yéen lañ ci woo ci liggéey bi ñu bàyyi yàq bi ñu bàyyi foy ñu bàyyi lépp loo xam ne ko def loo xam ne daf ñuy enfreindre suñu liberté wala te retardé suñu jigéen ñi leen ci woo ñu bàyyi lépp loo xam ne yokk réew koom nekk ci liggéey dama formé wu am ay financement yu jëriñ créé ay unité de développement créé ay unité transformation ñu bàyyi ngir ay financement di ko séddoo financement pour liggéey la pour jàppalante la pour teg ay unité économique yoo xam ne tax jigéen ñi mën cee jariñu ëllëg mën cee liggéey am ci salaire mën cee liggéey am ci formation parce que loolu dafa yore jigéen xam naa su ma diggante koo damay guddal bu bari dama ciy wax mais juste rek lancer un message pour suñu participation ci développement réew mi président wax fast track lépp dafa war a gaaw lépp dafa war a yam lépp dafa war a baax loolu jigéen ji leen ci woo ko ñu sant yàlla bu baax di nuyu yonante bi sangu sang yi di gërëm bu baax sant ñëpp di ñëpp di remercier ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad